magistrat yi ay nit ñu jub lañu ñu ëpp ci magistrat nit ñu am di dignité lañu. ok ñu ñu bëri di xaar lan moo waral Ayib Daffé ba léegi demujul jëli ji fiche fële ca direction générale des élections. waa affaire bi xam nga dafa am procédure. Mhm. waaw Ayib mënugul a jëli euh, fiche de parrainage yi ndaxte juge bi nga xam ne moom moo jugé affaire bi dafa am kayit gu mu war a bind. pour ne man lii des bi ñu ma defee lii lii euh, bi ma joxee biñu bi ma jugé. mbir mi présider séance bi lii laa dogal donc daf ko war a bind l'administration elle est écrite mhm. il faut que mbind moomu pare pour comme ñu am possibilité dem jëli suñu parrainage moo tax dama bëgg rek sénégalais yi d'une façon générale ñu bàyyi juge bi mu liggéey liggéeyam ci teewaayu bakkanam ndaxte li muy bind noonu lu am solo la mais bi xaaru leen tamit c'est vrai temps bi xaaruñu temps baa ngi temps baa ngi daw d'autant plus que dañu wàññi sax léegi durée mhm. parrainage waaye Pastef day parti boo xam ne je suis persuadé qu'en deux semaines en deux semaines war nañu mën a collecter lu mët au moins trois millions de parrainage mhm. Pastef c'est une machine c'est une machine euh, on est implanté partout dans le Sénégal et toogu ñu nii rek di xoolee ñu ngi préparer parrainage bi bis bu ñu jotee suñu fiche dañuy daal di rek euh, mhm. dem c'est c'est une machine huilée donc dañu bëgg ñu bàyyi le juge là liggéey liggéeyam ci teewaayu bakkanam ndax li muy bind lu am importance la il faut que ñu bàyyi ko mu liggéey ndaxte dañuy bañ mu am faay parce que looy euh, d'ailleurs ñoom nee nañu dañuy dem dañuy dem en pour en cassation. Mm-hmm. bu ñu demee cassation lool ci lo ci loolu bi juge bi bind dañ ciy sukkandiku aussi su fekkante ne am na benn faay bu ndaw rek mën nañu annuler jugement bi moo tax dañu war a bàyyi juge bi mu bind ci teewaayu bakkanam génnee argument yi mu war a génnee yépp ba du ñu am fenn fu ñu ko mën fu ñu mën a jaar jugement boobu mhm. pour mën ko kase ok kon kon bokku leen ak ñi wax naan non dañuy bañ a jël fiche parce que dañoo bëgg a déglu ba cour suprême wax ba noppi euh, ñu doog a dem jëli ji fiche déedéet bu juge bi bindoon tey mhm. suba ayib dafay dem jëli fiche yi ci ngoon gi ñu tàmbali suñu parrainage loolu moom la léegi léegi bu ko jëlee après ngeen dem cour suprême mhm. xamoo leen dafay am tamit est-ce que du jëlee ji ay parrainage te xaaloo mbir mi définitif xam nga njort gu rafet mooy tax ñuy dem di liggéey dañoo am njort gu rafet ni cour suprême du ko kase même bu fekkonte ni sax doon nañu am xel ñaar dañuy dem parce que askanu Sénégal ñoo yàkkamti saafonte ak Pastef askanu Sénégal ñoo yàkkamti saafonte ak ndaw yi Ousmane Sonko yónni mhm. pour collecteel ko parrainage tey jii bu ñu toogoon suñu siège rek wala ñu toog ku ne toog responsable bu ne toog sa kër nit ñi ñoo lay fekk si foofu pour parrainer mm-hmm. chaque jour tu on reçoit des dizaines d'appels ka al ana fiche ana fiche di ñu ko laaj sénégalais yi boo seetloo parenage bi fi mu nekk nii gisoo mu yëngatu de mm-hmm. ndax mot d'ordre bi Pastef joxe ne bu kenn parrainé gum sénégalais yi ci boppam li ñu yàkkamti mooy Pastef indi ay fiche de parrainage am pour ñu parrainel pour mu parrain pour ñu parrainel ñu. Mm. donc pour vous dire simplement que euh, il serait euh, disons difficile de croire que cour de cassation dina kase affaire dina kase kon eh, kon espoir bi daal am na fa. bu baa ngi fi ba léegi. Mm-hmm. non du ko mënu ko kase sax. parce que ñoom xam nañu li Ousmane Sonko représenté au delà de ça au delà de ce qu'il représente bu ñu waxee le droit rek. dañuy delloowaat Ousmane Sonko ci ci droit ki euh, ci ci fichier mhm. mu bokk ci élection ndaxte nekkatul en état de contumace. Euh, jàpp nañ ko. donc li loi bi wax mooy bu ñu la jàppee yow la contumax. Mhm. jugement bi dañ koy anéantir maanaam dañ lay dañ la ñu la tegoon ci sa ndodd dañ koy dañ day naxsaay mhm. dañ dañ koy far dañuy reprendre at procès bi kon beneen. Euh, Euh, comment on appelle ça encore beneen citoyen la beneen mm-hmm. euh, euh, voilà beneen citoyen la bu taxaw ci mm-hmm. kanamu justice ñu war ko beneen justiciable voilà mm-hmm. c'est le terme que j'ai cherché beneen justiciable la bu war a ñëw ñu jugé wat ko. ok parrainage boobu la ñuy des ba tey am na ci ñoo xamante ne. dañu jàpp ne yéen ñi nga xamante ne am ngeen ay élus yu leen may ngeen mën leen sukkandiku su parrainer seen candidat. wara leen woon dem di wuti ji ay parrainage citoyen Euh, loolee bokk na ci li nga xam te sabotage sax lañ ko jàppee parce que am fu ngeen mën a sukkandiku ngeen dem di wutale pour xàññale loo xamante ne ñoo ko war am gis nañ Pape Djibril Fall def ci ay kàddu yu mu ci yëkkati ak docteur Abdourahmane Diouf euh, nan ngay gisee loolu est-ce leen woon jël seen parrainage des élus rek wax seen député ñu parrainé leen rek comme ça ngeen mun leen bàyyi ñoom tamit. parce que yéen ngi ne bu kenn parrainé euh, bloqué affaire yi. ah waaw ñoom xanaa ñoom dañoo wóoluwul seen bopp. ah, ah kay waaye ah, dafa fekk ne soo nekkee candidat mu wóor ne yow mën ngaa gagné élection présidentielle mais pro waroo am problème mu parrainage lu tax ngay wax naan ngay teri nit mu dem wuti ji parrainage non bu fekkante ni da nga wóolu sa bopp waruloo wax nit bul wuti ji parrainage yow demal yow demal sur le terrain nga dem wuti ji parrainage ñun suñu stratégie ñun ñoo ko xam ñun ñoo koy tëral kenn duñu ko tëralal ñun suñu stratégie ak ni ñuy xeexee ñun ñoo ko xam li ñuy wax naan ku ne yaa xam na ngay tojee sa bopp jinax nax ah, dañ ñoo dissoudre ce n'est pas un moyen d'être encore sur le terrain mm-hmm. on nous a dissous depuis combien de temps réunion en présentiel sax mënatuñ ko am donc on a besoin d'avoir un moyen bu ñuy permettre ñu saafoonte teg askanu Sénégal ñoom bu fekkente ni wóolu nañ seen bopp Pape Djibril Fall ak euh, Abdourahmane Diouf mais nañu dem sur le terrain dem bu képp koo xam ne jàpp nga ni. mën nga bu ñu day day compliqué si ñoom. comment muy compliqué parce que bu ngeen jaaree jaar fële taxaw jaar fële. waaw xam ngeen ne yéen am ngeen machine boo xamante ne. waaw mun na mun na néewal doole. ña ah, ña bi ñu demee ba xam ne ñoom amuñu doole bu ñu demee élection présidentielle lan lañ lan lañ fay wuti. non am nañ doole. ah déet. waaye apparemment amuñu doole su fekkente ni loolu la kay cela veut dire que amuñu doole bu ñu dem parce que ku mënul am parrain parrain ñaata la. 44000 mm-hmm. 44000 ku mënul am 44000 parrain. wala balaa nga koy am nga koy am difficilement cela veut dire que yow wóolu woo sa bopp ci élection ya parce que pour ñu élire la il faut nga am au minimum 2 millions de voix. Mm-hmm. en tout cas ci élection ni muy doxee fii au Sénégal au minimum il faut nga am 2 millions de voix. entre quarante quatre mille ak deux millions nag y' ñëpp xam nañu ñëpp du ñu bokk élection pour gagner euh, moom du ma bokk élec ci élection pour bokk ci rek. Mhm. su fekkonte ni Ousmane Sonko mii dafay dem élection pour dem ci rek. mais xam nga ba muy bokk deux mille dix neuf. xamoon nañu du gagner bi muy dem deux mille moom xamoon nañu du gagner parce que poids bi ah, tollagul woon foofu. da maa posé question déglu ma. <laughs> en deux mille que Ousmane dafay gagner élection yooyu on était convaincus absolument parce que ñun dañu xool suñu cheminement dañu xool liggéey bi ñu liggéey entre 2014 et 2019 avant 2019 2018 la ñu dem seeti ko ne ko dañu bëgg nga nekk candidat il l'a accepté mu ne d'accord naa ci nekk candidat wu Pastef ci kaw ngeen may ma ma wax sénégalais yi fan laa leen jëmale keroog ba ñu defee suñu lancement wu livre boobu livre vision bi solution solution pour un Sénégal nouveau mhm. ce jour la man pour man Ousmane dafay gagner élection yi tellement Sénégalais yi engouement bi ñu wone woon malheureusement on a on on a manqué un peu d'expérience il faut et on a mhm. manqué surtout de moyen mhm. ce sont les moyens qui nous ont fait défaut ah oui élection yooyu c'est surtout les moyens qui nous ont fait défaut suñu premier jour rek déjà on avait des problèmes de carburant pour démarrer pour démarrer pour pour wër Sénégal yëpp nag c'était difficile suñ la waxoon suñu budget de de campagne par rapport ak budget yeneen gars yi mais da ngay certainement vous allez éclater de rire mais normalement élection yi deux mille dix neuf yooyu si su fekkante ni gàllankoor yooyu amuñu ko woon. Mhm. mais dañ ko doon gagné. donc man bu xalaatuma nit war a dem ci élection pour dem rek comme ça dem pour lan. Mhm. tu vas pourquoi. mais su fekkente ni yow am nga projet xalaat ni yow sénégalais yi gëm nañu projet bi. bu boobaa da nga war a gëm ni da ngay gagné élection yi ñii nag ñii nga xam ne dañuy dem bay am ay problème mu parrainage bon écoute. gisoo gisoo gisoo si erreur euh, am koo xamante ne war na mën a am parrainage euh, euh, des élus mu ah. dem di jëli ji parrainage citoyen est-ce que tamit loolu.